ziar di la ndokkale ci sa euh, bés bi nga xam ne moom la sa maam demee woon euh, ca exil ba euh, ñu koy màggal incha allah rabi ko yàlla dogalee suba waaye tey da ngeen ñëwoon fii ci benn panel organise ko jàngal ñu ñaaxaat ñu wanaat ñu yoon bi nga xam ne moom la war a jaar. ci loolu ñu jàngee ci benn journal bi nga xam ne moom la ñuy wax ci Figaro mu wax ne Afrique dafa amaat beneen mekk maanaam. mooy Touba te Touba googu noonu tamit est-ce que waajal nañu ko pour meg boobu noonu ñu leen di jiiñ ñu mën koo taxaw ci wàllu koom mën koo dëggal ci wàllu jikko mën koo dëggal tamit ci wàllu société euh, ci loolu rek ñu doon sàkku nga indi ñu si ay leeral par rapport ak li ngeen fi wax léegi-léegi. waaw Figaro du Figaro du suñu référence. du le Figaro di bind Afrique dafa am beneen meg rek ñu jàpp loolu. meg benn la tama nga Arabie Saoudite kon loolu moom daa war a leer ci njëlbéen bi. Touba du mag faut que ça soit clair. màggal Touba du aj Makka. loolu aussi faw faw mu leer. Touba bi dañuy jaxase amuñu culture islamique ba pare dañuy yàq. li ci des nag moo di bis la boo xam ne bis bu tedd la bis bu sell la bu ñuy defal Serigne tubaa koo xam ne dafa liggéeyal boromam mu may ko loo xamante ne bii may bu kawe la bu rëy rëy la. mu ne man lot naa ci sant ko kon nañ ñëpp daje di ma ko sant le kon loolu mooy li ñu fi dajale ngir sant sunu borom loolu nag am na ay wàccaay yoo xam ne war na ci wàccaay yooyu nag mi ngi am mi ngi am ndax boo dee xool bu fekkee daa nga fi ñëw bu yàgg ñëw fi léegi xam nga ne xar mu dëkk bi soppeeku na ci anam yu bari waaye ba tey des na loolu si moo tax ñu def ay jàngat di xool yan yoon lañu war a mën a jaar ak nag lan lañu war a def ngir daal nekkinu ñi fi dëkk. ak nekkinu ñi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si bu ñu dikk seen nekkin foog naa dina am euh, ak jàppandal ci li nga xamante ne bii mooy li ñu aajowoo. waaw ba euh, muy dem dafa am lu ñuy bàyyi loolu muy sàmm muy spacement nga xam ne moom la ñu war jàng alxuraan maanaam ci wàllu benn maanaam aussi ci jikko bi nga xam ne boo fi ñëwee ren bu déwénee war a mën a yokk. loolu noonu ba tey ci seen cadre organisation fan ngeen ci toll ak ndaw yi nga xam ne ñu ngi judduwaat ci seen biir ban taag ban taxawaay lañ ci mën taxaw pour mën a jëriñoo héritage boobu. non loolu gi la ñu nekk ndax héritage bi li ñu fi bàyyi mooy di ko sàmm kon sàmm héritage bi moom lañ fi nekk te ba fi la fi Serigne Touba bàyyi ba tey ji boo ñëwee moom moom fekk ndaw itam li nga xam ne mooy li ñu war ci ñoom mooy di leen yar di leen jàngal di leen awane ci yoonu siraatal mustaqim loolu aussi ci la ñu nekk te duñ ci tamit kon daal fii di dëkk bii di Touba dara soppeeku la fi Serigne Touba bàyyi woon mu di am njàngaleem ci la ñu teg suñu tànk ci la ñu aw duñ wàcc mu ndaw yi tam li ma la wax rek jàngal leen yar leen nampatal leen ci lislaam boobu bu ñu màggee xam naka la ñuy mm, toppee seen diine ak naka la ñuy yàlla ak naka la ñuy topp yoon sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, euh, fi ñuy jeexalee rek mooy euh, màggal bi ak classe politique bi parce que gis nañu ku nekk dangay daw ñëw pour jël si sa wàll yéen nan ngeen di dundee loolu seen euh, côté màggal mu amul politique màggal amul même boo dee déglu ñu bari ñu fiy ñëw sax dañ naan politique indiwuma fi kon bis la boo xam ne ni ngi day ñëw ngir di sant li si Serigne Touba yàlla bis la boo xam ne aussi boo dikkee ci bis bi doo xamee kenn fu mbokk kon màggal mën a su ko politique te amul politique ñoom nag ay taalibe lañu dëkk ci réew mi ñenn ñu ci bari aussi di ay jullit kon lu mel ni bu amee danañ ñëw ànd ko ak njabootu Serigne tubaa sargal leen waaye boo gisee tey ñëpp ñoo fi ak suñu man di bok ak suñu man nek bis bi mom bisub sante euh, seringbi serigne bi suñu borom la waaye bi euh, kenn du ko ci dugal kon mom ku fi ñew tam jëne yene ci bo dikkee fi ngay fek njabootu serigne bi ñom kat ñu sam li nga xamanteni moy bis bi ci anam nga xamanteni mom ñu ko kaddu mu ci wa man amu lu may denkane xana rek di ndax denkane mom serigne bi moko man waaye li nga xam ne daal mooy yi mu jël mooy di jaale ñi nga xamante ne bii gën nañ àdduna ci ñaari fan yi te muy lim bu tàpp boo xamante ne bii lu metti la di leen ñaanal yàlla di ko jaalee aussi seeni i seen i seen i njaboot di ñaaxitam itam sunu mbokku sëfoor yi ñu ñu gën a tey ci yoon gën a gën a def ndànk di di di di di xool oto di def seen visite technique lépp loo xam ne rek war na ñu ñu ñu dafa gën di bàyyi xel ndax daal wallu sécurité bi ci anam googu mbir la moo xam ne mbir mu yitteel yitteel na sëriñ bi tey ci bëccëg dégg ngeen sëriñ Bass wax na ci bañ demee fee fa ñu jàngale alxuraan la kon daal loolu foog naa lu am solo loo xamante ne bii euh, foog naa mënut a mënut kon ñu ngi leen di ñaan rek ñu def ndànk ñu teey ci ak ci ak dal di ñaanal itam ma di ko baamu ñi nga xam ne ñoo fi jógee. te di di métti di naqarlu itam nag vraiment li nga xamante ne bii moom mooy mooy mooy li xew.